li ko paa waxee teg ko ci yoon di xaar yoon bi mu amee man bi di wax ak yow témoin yooyu ci laay laal ci témoin yi fekke yi fekke man ci laay cof parce que demoon naa tribunal am ñu ma ci àndal procureur bi mu ñu woowee ñu dem toog dafa ni jox naa ko juge d'instruction premier cabinet dem leen yóbbu seeni témoin ne demoon man ca laa bokk pour yóbbu témoin yooyu ànd ak benn avocat malheureusement ñu jox ñu rendez-vous ba lundi parce que du premier du euh, premier cabinet du juge new fa woon dafa bougé woon deuxième bi aussi dafa guddee woon troisième bi lañ fa fekk waxtaan ak moom mu mu orienté ñu ñu jox ñu rendez-vous li indi lii nag mooy li xew démb ñiy génn ci réseaux sociaux di wax accident la man maa murit koor bi murit ko papaam mii xam nga nit ku daanu sax ci tari di nga am loxo wala tànk walla dara bu xoos amul xoosu xoosu dafa set wicc amul lu daq si moom mu dox xam nañ ni su këppoo sax day day perte wala daal mu dugg direct moo ci am témoin yi ko fekke woon fii lañ ñëw ci màngoo gi lañ toog fii lañ toog kenn gi bi ñu ko njëkkee déglu nee nag moom moo doon xeex ak ku tudd Babacar ku nekk polisu bu xale baa ngi fi mënu leen ko jël nii xanaa juge d'instruction jël koo pare ngeen soog koy jël xale bi dafa ni moom bi muy xeex ak Babacar bi nekk foofu el capo ma nga fa woon ci biir oto bi kat lañu woon histoire la woon fa la démarré te loo gis dafa dafay dafay laaj commencement ba lu am dafa wara lu am am na lu tax mu am commencement ba xeex la woon ci ñaari booy ci Babacar bu police parcelle ak benn booy bu nekk som bu tudd turam man du mënuguma ko wax pour l'instant xeex nañ ba booy bi yëreem xotteeku nee na moment boobu el ma nga fa woon sol benn short bu yam fii ak benn débardeur kooku wax nekk foon manga nga foon sol benn débardeur waa kër xale boobu ñoo génn àtte leen jël xale bi dugal ci biir ak magam ñëpp ña nga fa ñoom ñu départ kon kon ñi doon wax naan nekk ñu woon sur le terrain ña nga woon sur le terrain kooku mooy ki nga xam ne ni leer na ni affaire yi si moom la commencé te dawul pour wax histoire bi commencement ba fin leen la fekkewul bi ñu dóor Amar muy daan bi ñu koy dóor muy daan am na ku ko fekkee te ni mu ko fekkee fa fa mu amee woon am nañu fa toog fekkee ko noonu yoo xam ne ni Amar bi moto bi dawul daan dañ ko gaare di ko laaj caabi mu bañ ñu bëmax ko mu bëmaxaat waaj waa dóor ko matraque la woon dóor ko ko mu bëtt keneen ki ñëw dóor Amar jot na riposté keneen ku dóor ko ci kaw kaw bi dam mu dee xam nga dafa yomb loolu moo rey Amar Mbaye ci liñ ñu nettali ci témoins yi fekkee foofu juge d'instruction premier cabinet bi nga xam ne procureur mu ñu fa yóbbu woon ñun ak pa bi moo nañu dem leen moo ñu wax nañu loo leen gis wala loo leen dégg yóbbul leen leen leen léegi heure bu ñu woowee ñu indil leen ñaari xale yooyu fa mu amee am na ay caméra de surveillance lu tax demuñ ci caméra de surveillance yi fa mu amee am na fa am na ñu toogoon foofu ay pa ak ay mag ñoom dañ ñu mënuñoo ñëw di témoin mais bu leen fekk si ñu wax la dëgg dafa yomb liggéey bi dafa yomb dañuy ñaan ñun dañoo wóolu justice looloo tax depuis loolu waxuñu si su fekkoon presse rek ñun chaque jour ñu def point de presse sur le plan politique ragaluñ ko mais lii dee si ñu la daal c'est la première fois ma ciy wax dama ci xam dafa bari dañuy yaakaar di premier jour d'instruction woo ñu indil leen xale yi toog. benn business ñu orienté leen ci ña xam ne ni fekke nañ c'est simple comme bonjour man gisatuma ci luy dem dikk ainsi de suite ñun daal lu ñuy bañ accident ñun xam nañ ni moos ah. li ñu yor tiim ko nii sangal ko suñu bopp xam nañ ni du accident nañu bàyyi yooyu ki ngeen wax moo ko rey wala ñu ko rey jox ak yéen police mënul nekk ay jakartaman wala man dama ni premier juge d'instruction procureur moo ñu orienté ak góor gii toog nee na ñu indil ko ñooñu xale yooyu nañ ñëwoo ñu indil ko ñooñu ñu déglu leen yoon def liggéeyam loolu rek la. amul la ah. di wax aussi tamit. booy police policier lañ gis ñu dóor ko wala. ñoom seen wàll bopp. waaw policier lañ gis. te ñaar ñaar ñaari ñaari ñu bokkul la aussi. ki première ak ki boo deuxième bokkul. ñoom ñooñu ñu ko nettalee nii suñ ñu woowee ñu yóbbu leen ñu nettalee ko noonu ki njëkk a door Amar Amar dafa dafa dafa riposté ci kooku keneen ku dóor ko ci loos mu daal bi muy dem mi ngi ko laal naa ko kay am na mag ñu ko fekkee ña nga fa toog fi lieu bi fi mu amee am na mag ñu ko fekkee waaw lañu dox si lieu boobu xool ñun ñu laaj ñu mag ñooñu ñu jëm leen orienté ci mag ñooñu wala ñu xool caméra de surveillance yi newoon foofu